bokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ak ñun te di ñu seetaan mbokk yi noo ngi amaat mbégte di ñëwaat ak yéen ci seen émission bi ñu duppee ndogul Touba ndogul Touba ngeen di ci minaan ak seen mbokkum taalibe Fallou Gala Sylla mu feggoo ci wàllu caméra bi alaaji Fallou Sylla ñu àndandoo ak moom nag di leen nuyu nuyoob lislaam <clears throat> di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan sunu boroom mu gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram waaye di siyaare mbooleem njabootuk sëriñ tubaa gépp di siyaare mbooleem seexi sëriñ tubaa yépp boo koy tey ñu am mbégte ci dalal sëriñ Cheikh Gaye sëriñ Cheikh Gaye bokk ci noonu ma ko waxe woon donga yi génne ci loxoy sëriñ saaliwu bu ngeen gisee émission bi li ci ëpp di dongay tarbiye yu jaare ci loxoy sëriñ saaliwu jubluwun ci dara rek lu weesu wane liggéeyub sëriñ bi ngir ñu xam ne yoonu murit ñi nga ci gis ba dégg ñuy wax nangami junnee nga ca suuf yu waxut te xam lu toll ne lañ xam loolu mooy liggéeyub sëriñ bi ndax moo wax lan boppam ne inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa sama jihaad yëpp maa ngi ko teg ci xam-xam ak ragal yàlla kon war naa génn ay boroomi xam-xam yu bari te ànd ak ragal yàlla ndax inna allazi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin loolu nag moo tax ñu dugg ci daara yi sëriñ saalihu di leen ci indil léeg-léeg lenn ci dongo ya fa jaare ñu dalal sëriñ Cheikh Gaye nag incha allah bëgg koo bàyyi mu nuyoo ak bokk yi su nuyoo nag waxtaan wi ci ñetti tomb lañ koy teg benn bi mooy ashukru te moo di ak cant ndax suñ borom àddu woon na ci alxuraan ne lu ëpp ci jaam yi day la tax seeni may bariwut mooy dañ dut ay santaakon waxit ne ab santaakon nag moom li feeg mi ngi sant ma di ko dolli sëriñ tubaa nag waxal boppam moom cant sant gu mu sant yàlla li sëñ tubaa yëgal boppam ci diggam ak boroomam ba di ko sant eh, sëriñ Cheikh Gaye dana ci ñëw ak ñun tom ñaareel bi mu jëm ci diggante sëriñ tubaa ak weeru koor xam ngeen ne weeru koor bokk yi jullit yépp koy teeru bu ñëwee ñu di ko woor waaye sëriñ bi weeru koor daf ko àgg foo xam ne ndax bëgg a woor rek ndax am na yeneen bis yu ko yàlla may mu di ko woor te di ci jëlee ay tuyaaba waaye nag weeru koor it weer la wu sunu borom subhaanahu wa taala teral te ber ko ndax sëñ Tuubaa daa day day day day gàttanu weer wi ngir bëgg a woor wala day gatanu weer wi ngir bëgg weer wi la mu waxoon ne daa ani ila matxi nabi ubusaatihi bu demee ba boppam bay wax ak boppam ne yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan kon moom ganam gi am na yëg-yëg boobu am di gëm ak moom sëriñ Cheikh Gaye dana ci ñëw insha allahu rabbi tombum ñetteel bi nag mooy bokk yi xam ngeen ne ñu ngi ci jamono yi e, coronavirus muy feebar bu bon boobu nga xam ne yàlla ko yàlla génne ci réew mi génne ko ci àdduna bépp yàlla ci yàlla defal ndam Sénégal waaye dafay mel ne sëriñ Tuubaa waxoon na ci loolu Serigne Cheikh gay dana ci ñëw ak ñun kon dama koy bàyyi mu nuyoo ak bokk yi su ko defee rek ñëwal ñi ci sunu laaj bu njëkk mën naa ànd ak nuyoo bi mooy sëñ Touba cant googu nga xam ne yëgal na ko boppam ci diggam ak boromam ba di ko sant sëñ Cheikh. bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa asna xadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullah sëñ Fallou maa ngi lay nuyu di la ndokkeel di la ziyaare ci weer wi ñu nekk muy cheikh Ramadan di eh, wax rekk ni nuyu nga fi ak nuyoo war a tàmbalee muy kilifa gu mag gi kon may may feddali sama nuyoo ci loolu ak sama ñaan di ko feddali ci sëriñ cheikh mu sëriñ Saalihu ak njabootu sëriñ Saalihu gépp ak waa kër sëriñ bii yëpp yëpp euh, xam naa mm, sëñ bi moom boo nee dama ci wax nangam faw nit ñi nangul na nit ñi nangul na ni mm-hmm. eh, jubloo wax ni nii ma wax rekk ni la mm-hmm. dangaa wax nanga nga jàppe mm-hmm. eh, te it nag loolu moom yàgg na borom xam yi am na ci ko wax ni li ma ne moom damaa jàpp ni mooy as-sawaab moo jub mm-hmm. waaye nag leneen lu dul li ma jàpp maanaam jamtanu la moom it mu nekk njub te li ma ne doon njuumte mm-hmm. keneen it noonu mm-hmm. kon jàpp na kon kon moo tax nuñ ci waxee it néewuñ nii rekk la xëy na sunu dégg foofu la toll loolu lépp xëy na mën naa doon guddal te matu ko ci tomb bi bi nga njëkk a wax daal mooy sëñ Tuuba radiallahu anhu dafa yëg ni sunu boroom defal sunu boroom da koo defaral ak dundam noo xam ni dafa mel ni dafa wéetu ci ni mu ko ko defarale mu yëg nag ni yàlla am na xàqu ju réy ci sant ko ci loolu ci ber gi mu ko ber waaw ci defaral ko ak dundam ak dundam muy loo xam ne moom xam na ni da ko wéetoo mm-hmm. mu xam nag ni bor la te as gor day fay bor mu ne yàlla maa ngi lay sant ci sama dund gi lahu shukuri ala xayaati abdan xadiman xam nga ki yor oto boo xam daa xaw a sant jaañ xëy xëy beneen bu bokkut ak booba bu gën a taaru bu gën a dëgër ñëw sañ na ni maa ngi sant yàlla ci oto bii mm-hmm. sëñ bi nag ni gis naa dund gu ne waaye maa ngi sant yàlla ci dund gi ma may lahu shukuri ala xayaati mm-hmm. bu ko defee nag boo nee ko li laxasu ci dund gi ba nga war a sant ku ma koy laaj mm-hmm. dan naan la bul laaj ma sàmba bu laaj ma demba dellusul ci bayit yu mu ko waxee bayit moo lay tontool mm-hmm. bayit moo lay won ni la moom kan li tax mu war a sant mooy lii ak lii ak lii jërul sonn te mooy li mu wax ne abidan xadiman faaza bil ayaati yett la al abd al xadim al faiz bil ayat al quraniya te mooy kon yàlla may na ma may jaam boo xam ni ku sore ku jige du du nattable ku ma moom ci wéet ak wettiliku maa ngi ci biiri noonu maa ngi ci biir njaboot mm-hmm. ku ma gis doo nattable man jaamu kan la allahu akbar mu ni maa ngi sant yàlla ci loolu mm-hmm. ndax am na ñooñ bëggoon a dindi loolu moo tax ñu jële ko fii yóbbu ko fi ko yóbbu axrajtumuni naatiqina bi annani abidul ilaahi mm-hmm. li ngeen ma fi génne yéen ñi xam ngeen ni du dara lu dul dama ni yàlla képp may moom ngeen ni ma du doon noonu kon benn ngoog xadiman def gi ma def ba nga xam ni nit duma séen ba jàpp ne am na ku may sibooru ak ku may xeemem dara ca lam yor ku dul sallallahu alayhi wa sallam sama dund maa ngi ci sant ak nag faaza bil ayaati mooy am ma lu may denc am ma lu may rënk am ma lu may yaakaar am ma lu may fonk am ma lu may teg ci kaw la lu dul alquranul karim keneen ku ma xamal jeneen alal tuddal jenn alal laa amuy alquranul karim kon yett yi mooy tax ma sant sama borom tabaraka wa taala ci dund gi mu mën a leere ci neneen mooy bi sunu borom waxee ni yéen samay jaam man damay leb ku mën a leb la ñëwal waaw yàlla waaw damay leb xam nga yàlla bu la nee damay leb day mel ni bu doon banque moom jërul laaj mm-hmm. ndax banque moom dalay lay leb ngir suqali ko waaye lebul waaye moom du la leb hmm. ngir suqali la. déedéet. suñu borom na dañuy ana ku may lebal ma suqali la. lebal leen ma. ma suqali leen. ma financé leen ngeen suqali ko. ma ngoog. <laughs> man da alladi yuqridu allaha qardan xasanan fa yudaacifuhu hmm. lahu adaafan kathira hmm. ana ku may lebal li ma lebal jural la njariñ lu toll ne yow. dootoo soxlaa leb. dootoo soxlaa leb. incha allah ana ku may lebal. wax ji suñu borom wax ji da koo ñor ba dafa dellu ci xadisul euh, ci alxadis alqudsi yi hmm. wax ni may yuqrid euh, gayra adimin wala zalum hmm. waaye waaye ana kuy lebal ku ñàkkut ku ñàkkut ana ku lebal ku dut tooñ xam nga boo lebalee ku ñàkk moom maanaam doj jot dëgg la boo lebalee ku ñàkkutit te jubutit maanaam hmm. doj jot suñu borom nag wane nag ni lépp gi moom damaa ñor. waaw damaa ñor. man am naa. Ah. ne ci mbedd mi rek. tey kay ku bari léegi nii. waaw kuy leb te ku ko lebal mu fay la. léegi nag foofu nag foofu nag bi suñu boo waxee loolu ba ñëpp xam ne fi la problème bi de ndax it yàlla nag nag moom bu la nee eh, maanaam ñëw lebal ma. ndim la wóor ni bu boo doon dem ci banque ci banque dafa yóbbu fa. Hmm. Eh, maanaam xaalis bu bu la hmm, kenn du ko jël. ndax boo ko defee da nga am jafe-jafe. dëgg dem ci banque di fa dénkaane xaalis wala di leb wala di joxe xaalis. Hmm. yóbbu fa xaalis boo xam ne foo la hmm. jafe-jafe dina juddoo kon moo tax itamit danañ daal di xam ne kon sunu borom bu nee lebal leen ma lu ko waaye lebalee it nag mbir leen eh, xaalis bi leer nag ngoog sëñ bi nag moom loole mu waxoon ni moom la ma yàlla dafa ci dund gi hmm. nee na bi ma ñëwee moom laa bi ma bi yàlla ne ñëw leen lebal ma bi ma ñëwee loolu laa ko lebal nga xam ne moom am na fitu di di alxabdu di alxadim hmm. alfaiz bil ayat mu ne aqrabtu rabbillaha kawni abdahu sëñ bi ak a ñeme ay responsabilité ak ko ñeme. nekku fa naan danaa ko lebal ak naan aqradtu. waaw def naa ko noppi. def naa ko rek. aqradtu rabbillahi kawni abdahu mhm. wa xadima abdillahi fi daarayni lebal naa yàlla dib jaamam. te yàlla xam nañ du ma lebal keneen sama bopp. yow rek ci laa yem. wa xadima abdillahi lebal naa ko di surga bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ma surga bu ma jaaxal nag mooy wa xadima abdillahi fi bëgg yonent bi ba jàpp ni bëgg ko ak liggéeyal ko ni mu la waree ci àddina noonu la war ci alaxira nga xam ne gars yi dañuy àgg na dañuy tëdd waaw ñoom jàpp nañ loolu dañuy fayu ah. moo ne man foofee gars yi fayoo hmm. su ma fa nekkee ba tey naa nekk di ko liggéeyal defal naa ci xasida googu oh. xuma mu xaddamatul nasi mu xaddamatul xidma hmm. wax na fa lu demee noonu lu xaw a demee daal wajaal li mimman yaxdimunahu fil jinan hmm. bu ma demee àjjana sax naa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom loo xam ne moom kenn xamul mu doon. kenn moom kon. Mm-hmm. moom am na kóoluti ci ni. Mm-hmm. yàlla su ma nee ko saab ja jaam laa moom laa lay lebal. Mm-hmm. yàlla du ne ma ah ndax noonu la demee. rek laa bëgg alxuraan rek laa bëgg moom laa lebal yàlla du ma ndax noonu la demee ndax aqaratu ci moo lay woon lool. jeex na jox naa ko yàlla yàlla d'accord na ci loolu. loolu nag ñëpp mënuñ koo lebal yàlla. waaw yàlla bi mu wootee bor bi moom. waaw du nu xaalis yëpp lay jël. déedéet am na ñu ñëw mu rejeté leen. bu ko defee it ci bunt boobu lay bokk mooy sëñ Touba ni ko yàlla dimbalee fi maanaam sëñ Touba daal ni mu wuteeg nit ñi na. xel daal mënu koo xalaat. ndax moom fi xelem fi xelem di dale ak fi xolam di sedde dañoo miinutoon nit. nag xelam war faa dale xolam war faa sedde. macha allah fi xelum sëñ Touba di dale. waaw ak fi xolam di sedde. yëg-yëg boobu. dañ ndax nit moom dañu ko miinoon ci bu naree tàbbi ji fitna mm. wax nu mu jigéen waaye suñ tubaab nag su ko wóoree ni fitna ji moom mm. ngërëmul yàlla nga ca fu mën a doon gannaaw xam ne ngërëmul yàlla ci rek xol bu sedd ci kon moom nangu na jaataat bi. foofu la xel xol bay gën a sedd. xam nga sëñ Touba bëggoon naa liggéeyal boromam bëgg na liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam mm. waaye jamono boobu moom amul boto boppam. déedéet mënta yóbbu boppam it fan koy liggéey loo déedéet amul bateau mënta dem Gabon waaw ah. te xam na ni fan koy liggéey loo fa la ngërëm la ne ndax ndax da ko bind mënta kon mu ni kon yàlla mi làqar ci ba indil ma gaal hmm. ma dugg ci dem tabbi ca fitna ja hmm. ngir la ma séen ci gannaaw fitna ja hmm. yàlla mu sant naa ko de wax na man lii jaada bis safina fii xidmatin li saaxibil madina yàlla mi mu indil gaal hmm. ma dugg ci hmm. dem fa fitna ja nekk hmm. ngir mën a daja ngërëmam yàlla moom sant naa ko de waaw ah ndax mënu foofu nag dañ ko miinutoon waaye moom jëmmi ngërëm li moom lépp lu mën a dajal ba àgg ca rek loolu baax na su ndax nag fa war a wax zu nax li wax zi nax li shawru shihaadi yi li gën a danse mooy nga xam fa fitna ne kii wut oto bu la ci yóbbu. Mm. sam noonu la waroon a doon. waaw moom moom mu dell dellusiwaat di sant boroomam mi ko wutal gaal gu ko yóbbu ji fa fitna ja nekk. fa fitna ja nekk. ba ma mën faa am léegi nag fam maanaam fa fitna ja nekk daa am lu fa nekk nag loo xam ne da koo jaral loolu yi da koo bindal boppam. Mm-hmm. sëñ nee na am na ngërëm loo xam ne bi ma cey jot géesu ma gisub xarit géesu ma gis rakk géesu ma gis mbokk géesu ma gis kenn. lu mu gis nag gii maanaam géesu ma gis. maanaam géesuma gis gis gis ku am solo ci gàttal laqad jaani fi daaxili l askari rida ca biir sol sa ca la ma yàlla gërëme si nga wax jooju fi noonu nii buñ ko romb noonu rek jàll ndax la ko arab moom xam nga jàngi jàngi ci alquran qad laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir nga xam ne fee dafa laam aku qat ci mm-hmm. waxaat samee la wax ah. inna allaha faqir wa nahnu aghniya mm-hmm. sanaktub ma qalu wa qatalahum xam nga foofu maanaam mm-hmm. <laughs> maa ngi jégalu ma wax ji dafa am nu mu bindoo <laughs> xam nga yow ma nga ne ma ndax déglu nga waxi démb ji waxi diw ndax dama déglu nga la waaw déglu naa ko am yàgg nga am keneen ku mu tudd ma déglu nga wax démb ne man fii waaw déglu naa ko de ah. waaw déglu ñaar yi bokkuñu waxi daw démb wax déggu naa wax jooju. dégg naa ko yii soo dégg naa wax jooju. dégg naa ko bokkuñ kon laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allah inna allaha faqir wa nahnu agniya sa naktubu ma qaalu wa qatalahum al anbiya bi gayri xaq damaa fëtt na si loolu waaye daal waaw bu boo defee nag moom dañuy laqad jaani fi daaxili al askar askari rida dellooti daal koy sepkuleeti <laughs> daa di ni li yanqaadi inda al baxri maa rumtu bi rida mhm. yaar la mhm. kon man fa ngërëm nekkoon fitna ne fa mhm. fàtte naa fitna ngir ngërëm lu mën a xew naa si jot xam nga fi noonu comme doon ci ñun ak suñ bëgg xees gi gépp fi noonu boo jëloon am milliard wékku ko ci wékku ko ci eh, maanaam eh, takkal ko gaynde ma takkal ko gaynde maanaam ci jëba nga jàkkaarloo mu wóor ne les milliards la maanaam dund di la gënal milliard moo tax fi doon di doo fa jar mukk sëñ Tuubaa nag ngërëmul yàlla moom na ko faatu jiit lu mu a doon moom na ci jot sëñ euh, Samba Laobé junjoon na lu mel noonu hmm. nee na fa yàlla wekkoon ngërëmul yàlla hmm. ku dul boo fa taxawee doo gis ngërëm la lay lore ngay gis <laughs> loolu loolu na ko dégg loolu mënees na ko dégg bu ko defee xam naa kon pour daaneel ci tomb boobu hmm. dañuy dellu si rek sëñ Tuubaa mooy sëñ Tuubaa ndax sunu borom tabaraka wa taala dafa fonk yonent bi ba beral ko njàmbaar goo xam ne daa bëggut keneen jàmbaaree ni moom sëñ tubaa sax euh, shaa shaa allazi l amru lahu wal xalqu an laa yakuna kan nabiyu xalqu sunu boroom bi nga xam ni moo moom lépp sàkk lépp moo ne damaa fas yéene ku mel ne moom du ku mel ne yonent bi du am rek moo tax bi mu ne laqad waaye nag li fi am foofu jubloo indi sëriñ bi mooy bi sunu boroom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi iswa xasana iswatun xasana bi suñ borom ne yonent bi day ku bëgg a mel nu taaru mu ngoog ban ñëwee dane ah waaye nag ndànk am na ci wet xam moom da koy bàyyee wet googu moom hmm. damaa nangul kenn fekk ko fa morom hmm. waaye ñu li itteel mooy hmm. wet gi mu nangu na ko ko fekk mu mën a doon waaw wet googu nag lay maanaam gi ñu ci itteel mooy wet googu ak sëñ Tuubaa waaw dëgg la wet gi mu yàlla nangu ku ca fekk yonent bi waaw ñu xool ko ak sëñ Tuubaa ndax Euh, suñ Tuubaa ni mu nangule boroomam ci yonent bi dafa jéggi dayo xam nga daa am yoo xam ne moom suñu borom na bu ko kenn jëm ndax moom foofu kenn mënu fa àgg mooy yonent bi jamaalu zaat jamaalu zaat maa ni ma ko bindee ni mu rafete mm-hmm. jërul kenn naan bala may juddu damay xaar ba maanaam maanaam ba mën a rafete ne moom doo judd jamaaluhu yasbifu ad ar-ra'i xam nga jumaay suñu tubaab ñu baax mi boo ko romboon da ngay wi da wiir wiir rek di xool ak xoolaat yow doo mën a jàll boo demoon ba gaarasu daaru yi du tee mu ne ci soxol bi dëgg la yunti bi taaram noonu la mel muy loolu moom jëkkal ji ak uluwul qadr daraja ji ma ko jox suñ Tuubaa daan ni waaw yàlla wax rek am alaw taati la an laa yujaarika gayru man lahu shiqwatun qad tujibu laana wa daa kenn du ak dëggal wax yàlla waaw ma nga ko yooyu yëpp. lu yàlla wax waaw. waaw lu yàlla wax waaw. moom moom moom ñaari contrat yeeg lu yàlla wax waaw lu tubaab bi wax déet. waaw loolu xool yi bari leer na. léegi nag bi bi kon wet googu nag koy teg ne mhm. wet gi nga xam ne nag yàlla nee na moom googu moom da nga ko ubbi moom wa fii dalika falyatanafasil mutanafisun ku mhm. foofu nag sew sew a muy ñoom baaleeg mhm. muñ ak dëddu addina ak ak yu demee noonu ci aju yëpp waaw yooye yooye yooyee moom njambaar ci la bokk xam nga ne. ku la tooñ nga ko. waaw doo tooñ kenn. foofu moom. xanaa kuy xaru moo naan naa ko fa xoole ba xam. natt fa saa bopp ci moom ba xam. xam nga sëñ Ibrahima Diop al-Mashari bu baax mi dañ fa ni sëñ Tuubaa moom ak njàmbaaram euh, am xel mënu koo xam nii. Mm-hmm. ndax mooy ki nga xam ni soo taxawoon ci am pénc ci di damm. Mm-hmm. soo nee gaynde tey ngay dem waaye eh, eh, yow it bu taxawee bu taxawee bu taxawee bu taxawee bee fee di tuus nga tuus mu ne ah man kay nañ ma bàyyi sa gott bi nag ah. ndax bëgguma am kersa ah. huwa shijaau alladi in qaama muxta in qaama muftaxiran hmm. yowman tasattara laysul gaabi bil gaabi allahu akbar sëñ bu doon damu ci mpénc hmm. gaynde du ñëw mm-hmm. kon njàmbar gu toll noonu mm-hmm. kon da nga naan moom càppacalu la ca te nag ci yéen war a roy Yonent bi la bokk waaw waaw waaw gars yi war a roy. waaw boo ñëwee ci ci des xam naa daanaka tomb bi nag war naa jeex ndax ni waxtu yu bindoo. di defe naa ko waaye boo ñëwoon ci des da ngay xool muy tabe nam ca waxee na ko fa ci maanaam fa ko ci àll xam nga suñu borom dañuy. saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lilmuttaqin alladina yunfiquuna fi sarrai wa darra ba ay jeex wal kaazimiina wal kaazimiina al ghayz wal aafiina an naas wallaahu yuhibbul muhsiniin yooyu da koy indi ci ay bayit wala ni loolu yàlla wax noonu hmm. ni ku ci jëkk yaay jiitu ñëpp hmm. yàlla defal na ko moom nee na yàlla defal na ko ba noppi nag jëf ko lam yanxuni buxlun lada darraai wa ma naxaani soxu fi sarraai fi sarraai wa darraai ñoo nax fi sarraai wa darraai xaasabtu nafsiya lada al aadaai hmm, bi kawmi ghaydi wa ma xawta daay wal kaazimiina al-ghayz allahu akbar bi ka afawtu an jamii an-naasi baada al-jihaadi al-mudhibi al-adnaas wal aafiina an an-naas bi ka ghadawtu mu'minan wa musliman wa muhsinan lam ara man lam yuslima wallahu yuhibbu al-muhsinin la ilaha illallah kon waxtu wee am na mu mel kon sëñ Fallou Uh-huh. teenoo teenoo teenoo. waaw tomb boobu ñu kii noonu. waaw bisimilah. mën naa jàll day mel ne kon tomb li taxoon mu war a sant yàlla. <coughs> moom leer na nañi. Mm. Uh, andi na layal na ko itam. Mm. muy njalbeenu waxam daal. Mm. mooy yàlla bind gi ma bind ci yett yi mu waxoon. may ab jaamam bu dëggal bu mu nangu ne ab jaamam la. di liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu yonent bi nangu loola mm. waaye di ko liggéeyal ci alxuraanul karim mm. ba muy sama wéttal di sama dëkkandoo mm. yett yooyu yëpp yàlla nangu na ah, ok li ci alxuraan jooju nag ah. moom moom nun moom buñ gënoon a dégg sëñ Tuubaa mu gën a baax ci lool buñ gënoon a dégg sëñ Tuubaa waaw ah. barakatul qur'ani tahmil qaari'a mimma min al bala yakunu taari'a xam nga ab mooy ku jékki-jékki ku jékki-jékki rek daal di jox fu mu dëkkutoon xam nga coronavirus dëkk fi suñu borom suñ suñ bi maanaam mais mboolem balaa bu bu bu jekki-jekki maanaam takki bagaasam ci réew moom jógee ah. nit yi cëpp ah. boo boo nee ko maanaam boo nee ko yow daal fi mu nii moom alxuraan léegi nag boo fekkee nangu ngaa songo ak moom bisimilah rakaati bagaasam wal bati barakatul qurani ah. taxmil qaari a mimma min al bala yakunu damaa dama bañ a sori ci ab taw yi waaye. danañ ci des waaw kon eh, damay ñëw rek ci gan gu tedd gi ñu nekk. mu di weeru koor. Hmm. weeru koor yéeg yéeg ban la ci sëñ Tuubaa am ba jàppee ko nag muy ganam goo xamante ne bi daal genn gan mi lépp na moom. waaw yooyu moom mos naa dégg menn mbokk mu baax mu ci wax lu am solo dafa wax ni sañ Tuubaa leen rek doy na ci xam diggante bi Ramadan mooy xasida gi mu ko teeroo. Hmm. defe naa fukki bayt ak aslaf la. Hmm. gi mu ko gungee defe naa jigéen a juróom benn fukki bayit mm-hmm. loolu lu muy firi mooy kon neenal la gan a ngi ñëw mm-hmm. nga dem gattandoo ko fukki kilomètre nga dox fukki kilomètre ak ñaar pour gàttandoo ko mu ñëw mm-hmm. muy ñibbi nga gunge ko juróom benn fukki kilomètre doyloo ci ginnaaw fukki kilomètre rek nga ko gàttandoo ak ñaar muy dem nga gunge ko juróom benn fukki kilomètre doyloo sa gan a ngi ñëw nga dox fukki kilomètre ak ñaar wala ñeent gan daal di koy gàttandu mu ñëw nga teral ko mu tàggoo maa ngi dem nga naan ko ah sëñ tey ngaa toog muy dox ngeen di waaxu nga topp ci gannaawam juróom benn fukki kilomètre doog a wàññeeku ku ne xam ne doyuloo ci. te moo ne la dëppal. waaw la dëppal. ndax man fii lañ ma yemloo. loolu moo indi inni uhibbuka xubbat zaati. Mm-hmm. moom. loolu la waxoon yonent yaa amali. inni uhibbuka mm-hmm. yaa mm-hmm. shahra yaa shahra siyaami bila ghashin mhm. mbëgg goo xam ne mënoo koo jeex ba gisee lu bëgg bëgg képp lay doon nag leen di ko kon léegi kon mu itteel ko waaye itti gi nag nee naa la jërul nga naan moom kat daa wax ne nañ yokkaat lañ daan def ak doonte daana ko deflu nañ yokkaat lañ daan def ci ramadan kun daan teral kun daan nangam yëpp nañ dolli yooya ak doonte ci la waaye nag am na leneen lu ca raxaale ku ne xam na ne am na koor yu bari yoo xam ne fekk ko ci biir réew mi ci àll ba la ko fekk mm-hmm. waaye koor yooyee feeñal na ci feeñal itte joo xam ne danañ xam ne sëñ Tuubaa itteem ci Ramadan dara mënu ne toll dëgg la lii seede lii seede sëñ bi ci ni am na ittewoo ci Ramadan mm-hmm. nga xam ni seede la boo xam ne seede buñ mën a xamle ni rek ci kaw mm-hmm. mooy sëñ bi ab prisonnier de guerre maanaam euh, sëñ bi euh, sëñ la. waaw ah. maanaam ku ñu jàpp la. dëgg la résidence surveillée. ma ngoog ab asir la. Mhm. ci waxiinu zahir mhm. ci li ñu gis loolu nga mën a tudd. Mhm. léegi nag kooku ñu jàpp nag. mu ne ci ay xat-xat. dafa am fu ko sharia jaar la woon ci koor. dëgg la. mu sañ faa jaar. sëñ ba nag ba mu demee ba toll ci xam war a jaar nag. mu gis ni loolu laal moom. in kuntum marida ab sarax la maa maanaam maanaam ko soxla jël. waaye ku am meneen pexe it nag. caa jaar pexe ma mu jaar nag moo koy indil ak seede ci itteewu gum itteewoo ma ah. baax. lii daal moom sëñ bi loo fi teg rek ku ci waaye man bàyyi ma rek danaa mën a am meneen pexe. boo demee ci Cheikh Khalil dalay wax ni la. wa man laa yumkinuhu ru'yatun wala ghayruha ka asirin kammala shuhur maanaam koo xam ne yow yaa ngi foo xam ne mhm. mënoo séenul sa bopp weer ba ni mhm. te gisoo it koo bokkal ay mbir koo mën a laaj mu naan la nangama xew mhm. xam nga sëñ moom bu dee woon tubaab bi weeru feeñ ko feeñ ni mukk moom mukk ci ko ndax bu amoon leen gën a jëmi kon sëñ bi moom mën naa ne ci xat-xat yu toll nii bu jógoon ni maa ngi koy séenu sax tubaab ba ñëw ni ko nangam kat nga war a def du ko ndax koo xam ne yow léeg gi fii ngay yendu ñu xëy xëy ni la barab sàngam la waxuma dox digganteem ak dem jaamu yàlla woon maanaam maanaam waxuma loolu moom tubaab bi moom moom xam na ni <clears throat> loola moom ku ne lottu nga ca. Hmm. digganteem ak la ko borom digal. Hmm. loolu ñoo xam ne ñoom mënuñoo dox ci diggante boobu. Hmm. waaye a rek mooy tey bu doon seenu aw weer ci tubaab bi ci da ngaa mën naa yegg kon bu boobaa foofu da ngay daal xam ni kon. am na am na ngàntul seenu kóob ak daje ko ca mën a wax dara. kooku nag la ko sharia waxoon mooy dañu ko kammale shuhur yow daal faral toog benn yoon rek boo xamee daal weer wi weeru rajab la waññal ba mat fan weer boo jógee Chaabaan dugg Chaabaan nga wàññi ba mat xam nga loolu soo ko defee mën naa am ñaari na ci boo xam ne ni ñaar fukk nag juróom-ñeent lay mhm. kon yow fi noon ramadan boo muy tuw da nga ko weesu doo ko tàmbali mhm. waaye téewul sharia moom loolu lay wax digal na mhm. teg ca nag ni la euh, wa inil tabasat wa dhanna shahran wa zanna shahran saamahu boo xamut weer wu mu doon mhm. am na woo ko njort man mhm. ngaa war woo xam nga loolu ba tey am sarax la la jox. am la mhm. daal nag bu yooyu yëpp maanaam bu fekkee ne. sarax yooyu yëpp waa nga xam ne yow xamoo lu mu doon. kon tànnal wenn weer nga woor ko. suñ mag bi nag dañuy moom naa man moom loolu ab sarax la waaye nag léegi naa wutum pexe delloo boppam ci boroomam tabaaraka wa taala moo ko nettali boppam. ba suñ boroom may ko weer wu ñëwati mu ni wii mooy weer sàngam bind teg sëñ bi xoolal xat-xat bu mel noonu nga ne ci sharia mayoon la lii nga ni mukk ci addin dinaa wutiwaat moom kay fa mu war a doon képp fa koy jaar waaye du mu fii moom fii du ma fi jël am lu lu bu ma koy génneel ah. saa yu jotee ma xam ne ñëw na waaye fii ah. du ma fi sarax mooy li sëñ ma lam nett lii ci Irwa Nadim ni nu wa ma kuntu arifu shahr ramadan لولا أن الله ألهمني أن أكتب الشهر القمري كلما استهل عليه هلال ونيوم بنا لأن أهل البلدة لا يعرفون إلا الشهر الفرنساوي ndax waa dëkk ba moom janvier février képp lañ xam xamuñ leneen kon loolu doy na sëkk ci itteewoo gu mu itteewoo woon ramadaan kon sëñ Tuubaa man yaakaar naa ndax charia sax mos na ci lekk sax macha allah <coughs> jërëjëf sëñ Cheikh Gaye eh, mbokki téléspectateurs yi ñuy topp macha allah yaakaar naa ne fii mu taxawee incha allah dana ñëwaat ci beneen tomb bi muy ñetteelu question bi waaye ci beneen numéro lay doon fii mu taxawee mooy sariya saraxam yi ndax sëñ Tuubaa mosu cee lekk benn wala mosu cee lekk benn incha allah bu leen tegg seen euh, wala bu leen toppale seen poste ci seen télévision Lamfa TV kon ma bàyyi la nga tàggoo ak bokk yi ñu sax waajalaat ñaareelu numéro bi ci mooy li nga xamante ne bii ni la sëñ Tuubaa indee solution ci lépp lu xew ci jamono rawat na ci wàllu balaa bi. kon xam naa sëñ Fallou maa ngi sant bu waax mm-hmm. di la sant ci yaar li nga yaatal nii. Mm-hmm. ba boole nu ci. di ñaan sama borom fay la ci ngërëmul sëriñ bi. yaatu. ak ñi nga seq liggéey bi yëpp ak kilifa liggéey bi di delloo yi du see di di di di di yeesal sunu cant ci sunu borom tabaaraka ak bunt yim nu ubbil ngir ñu mën a am lu néew ak lu néew néew ñu mën ko am si moom mm. bunt yim nu ubbil mm. muy bunt yu mën a jaare ngir am ci moom dara lu néew néew ñoo ngi koy sant di ko sant ci buntu yooyu. asalaamaaleykum wa salaam waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatuhu jërëjëf euh, Serigne Cheikh Gueye jërëjëf mbokki euh, téléspectateurs yi kon euh, ñu ngi di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous rek incha allahu rabbi ci beneen numéro seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekkoon ci micro bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.